يا أمانين الحسان جددي أيامنا asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci suñ programme bi mu di koor gi ak kër gi muy programme boo xam ne yéen a ko yàgg di ko toppa depuis bi ñu jógee ci weeri koor wi am na ay bunte yu ci bari yoo xam ne fugal nañ leen ko nag ci biir kër gi eh, tey nag ñu fas yéene jublu ci beneen waxtaan boo xam ne moom itam lu ama am solo la waaye nag balaa ma leen a wax li nga xam ne moom lañ tànn tey pour waxtaanee ko eh, dama leen a bàyyi rek ñu ànd ak bi yi am na doxant boo xam ne defal nañu ko ñu bokk ko seetaan mbokk yi comme ñu leen ko baaxoo di defee saa yu nekk koor gi ak kër gi la ah, buñ koor gi ak kër gi nag du ñu dem nukk te demuñ waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy dundal li nga xam ne moom lañ fas yéene waxtaan ah, ñuy def moom ne moom lañ fas yéene waxtaan yi mooy ah, jigéen ñi nga xam ne ñu ngi liggéey naka la ñuy def ak seen liggéey bi ak tamit seen wàllu toggandogu ci weeru koor wuñu nekk nii léegi nag comme niñ ko baaxoo di defee nu ñuy def rek mooy dugg ci béréb yi nga xam ne fa la jigéen ñi di liggéeyee ak tamit si place seen xalaat si lu ñuy waxtaanee tey si sa tur wi man Nafi laa tudd Nafi Ñaasi um, fi ñu ngi la fekk sa liggéeykaay dañ nekk ci weeru koor um, jigéen ñi ñu am rôle bu important ci biir weeru koor bi muy toogandogu uh, comme que yow da ngay liggéey carrière li di nga bi pare tamit yaa ngi war a toogandogu ci kër gi naka nga dee boolante toogandogu mi ak liggéey bi ah wax dëgg neex yàlla gamte sigil nañu parce que dañ dee teel a wàcca ñun two o'clock lañ dee liggéey si dangay gis ne balaa ngaa ñëw two o'clock mun ngaa def li ngay def ba pare ba pare suñ liggéey see two o'clock five rek ñu ñibbi dem yi li des gars dañ ñu wàññil bu baax a baax a baax a baax time bi waaw si gil nañ ñu de wax dëgg neex yàlla amuñ benn problème suñ tooga ndogoor mhm. comme que yow si yow nga ne amuloo benn problème si toog a ndogu waaye xëy na am na ñàkk du na jigéen yoo xam ne ñu ngi face maybe difficulties pour seen jikkar yi ñu mun leen a understand ci wàllu li nga xam ne mooy toog a ndogu bi soo guddee wàcce ak yooyu lan nga am pour wax jëkkër ñooñu ñi nga xam ne du ndee mun a baalal seen jabar yi ci wàllu liggéey bi ñu war a understand ne ci liggéey lañ nekk. waaw ɗum nekka rek si understanding bi la des rek xam naa ɗum nekka si waxtaan bi la des suñ waxee seen jabari dinañ mën a déego ñu xam ne liggéey bi moo ko waral waaw parce que fan naa daal euh, weeru koor bi ñëpp five lañ dee wàcca sax waaw ñu bari five la ñooy wa mun ngaa wàcca five ba pare dem tooga sa soos nga ndogu waaw <laughs> waaw jabu si see jabu dañ nekk ci weeru koor jigéen ñi dañ am rôle bu important ci biir kër yi euh, muy toog a ndogu euh, comme que yéen da ngeen dee liggéey naka ngeen dee def coono bi euh, liggéey bi ak tamit toog bi naka ngeen ko jëlee boole ci bés bi. Ah, liggéey bi moom ak toog toog a ndogu bi moom dafa métti dëgg dëgg parce que suñu liggéey c'est five lañ dee wàcca suñ wàccee léegi léegi ñu daw dem marché léegi léegi dafa fekk nduga nga ba pare bàyyi ko si fridge bi def li nga def ba pare nga dawaat dem si kër gi. understand nga dangay teg dangaa teg sa baag rek dal di dugga si biir waañ bi ma ne ko defar ba mu baax waaw ñëpp kontaan <laughs> comme nu nga ko waxee rek danga eh, teg sa baag dugg ci biir waañ muy coono eh, lool nag eh, ci weeru koor wi waaye tam ndax doo leen di am benn jafe-jafe ci wàllu njaboot gi ak tamit seen jëkkër yi maanaam duñ am benn complaint boo xam ne moom la ñoo jabatu daal ci waa li aajo liggéey bi ak tamit su fekkee ndogu bi xaw naa tarde tuuti Ah, wax dëgg neex yàlla ndogu bi moom duy tarde parce que xam nga nit ki sooy liggéey rek understand nga ngay ah, war a toog a ndogu foog nga programmer sa boppa weekend na ñoo dem marché dal di jënd lu ñoo jënda suñu amee lu ñoo season season dugal ko si fridge bi ñëw liggéey si suñu wàccee rek dañoo daw rek dem tooga defar ba mu baax bañ suñ góor yi mer bañ suñ xale yi mer man Aïssatou Diop waaw Aïssatou dañ nekk ci weeru koor te jigéen ñi seen rôle lu important la ci biir kër gi muy togg a dogu bi nga xam ne mu lañ faral di def ñu farloo ko lool nag ci weeru koor wi waaye yow comme que da ngay liggéey war a togg a ndogu naka nga dee boole ñaar yooyu ci bés bi. waaw ñu ngi sant yàlla rek di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne yàlla may nañu ko ñu teewee waat beneen weeri koor ñu ñaan yàlla teewee yeneen yu bare bare bare. mu ànda wér ak tal jigéen ñi nag seen rôle ci weeri koor rôle bu important la simply because jigéen ñi ñoo war a tooga tegal seen jëkkër yi tegal seen njëkke tegal seen yaay yi ak goro yi ñëpp wasalaam waaye nag loolu su amee ñu mun koo boolee liggéey bi tamit dañ war a manage weer rek seet naka lañ koo defee ba nga xam ne kenn du mer parce tey suñ ñëwee liggéey si doo long weekend lañ day am ñu utilize that time seet ko def suñ si si ni prépare suñ boppa li ñu dee gën a jaaxal rek ak jafe-jafe biñ dee mun a am rek mooy si marché bi parce que marché bi léegi-léegi nga dem doo am bagage yi nga soxla soo dafa waral ne léegi-léegi dinga ñaan permission sa boos nga dem seet nag si dee bi di nga teel a am bagage pour mun a ndogu bu neex loolu nag ñu ko jot du am foofu dañ am time limited because of availability of food si market bi waaw dëgg la marché bi daf dee seasonal sometimes nga dem si suba bi jën am ci ngoon bi jëndu am am dara du am waaye tamit ndax doo leen di am benn jafe-jafe si family bi understand seen understanding Ah, dafa des ni nga toogee rek lu nekk xam nga dangaa def proper management because foo toolu rek danga war di manage muy si office bi muy si kër gi at lépp foo mun a toolu rek dangaa manage léegi nag su loolu amee ñu seet rek naka la la jëlee beneen substitute pour def ko waaw baax na jërëjëf wasalaam ku liggéey ku ne rek te xam ne yaa ngi yore borom kër na respecte respecté sa liggéey boo pare respecté sa taay mi togg ndëgu parce que tamit xiif ba ngoon jot war a wàcc dem sa kër lekk bi di leet ak yooyu jumtuwaay yi nga war a defaree sa bopp di leet loolu daal jigéen jooyu sëy war na koo daw liggéey moom mënta ñàkk moom il ngeen liggéey waaye tamit respecté kër gi tamit am na ci solo loolu. kon nag mbokk yi ñoo ko déggandoor dégg nañ li nga xam ne rek moom la nit ñi wax si li nga xam ne moo ajo jigéen ñi nga xam ne ñooy liggéey ak tamit war koo togga war a toggandogu ah, muy doon nag loo xam ne lu ñu faral di gis la ah, saa yu nekk fu mu nekk ni jigéen ñu bari ñu ngi liggéey boo tam war a toggandogu amee seen kër yi ah, waaye ni ñuy def rek mooy delloo kàddu gi Anta Aida si biir studio bi ñu eggali waxtaan wi ci koor gi ak kër jërëjëfati roxi ñu laa gërëm bu baax Euh, di gërëm it ñooñu nga xam ne ñoom nga waxtaanal euh, ci xalaat bu uute boobu nga xam ne am nañ ko ci lii ñu tànn di ko waxtaanee mu di jigéen ñi en bi nga xam ne ñu ngi ko enn ci biir kër gi seen wàlli liggéey yi nga xam ne noonu la toppatoo kër gi ba yëpp dem ni war a demee te du ànd ak benn jafe eh, ñu ngi leen a gërëm bu baax nag góob garit eh, ci seen wàlli xereñ jamono ju ci nekk eh, dinañ ñuy indil théâtre bu gàtt rek boo xam ne mu ngi aju ci wàlli waxtaan wi balaañ leen a indil nag suñ gan yu tedda yi ñu ànd ak góob gar soxna si tey moom dafa dafa dafa guddee waaye tey su ñëwee fii tey su ñëwee dina ma wax ndax man maa ko fi indi ndax moom moo fi indi waaye ñëw ah jël jël kon yow tamit benn fan la rek benn fan la booy ah, yow xam nga fan nga toll si man tey ji dafa waroon a fekk everything nga ñëw ñu enjoy suñu boppam at least weeri koor la nit ñu understand nañ dafaa liggéey waaye nag na ut time tamit xam nga ah, xoolal ban time moo jot waaw yaakaaroon ne sax weeri koor dañ demee ñi a wàcce waaw si weeri koor bi nag seet defaraat boppam xam nga space waaye ba mu ñëw ba nekkalee la lii moo xew kay. mooy xoolal bantaay moo jot. dalanda dalanda. moom itam boo ko ooyee saa yu nekk mais ñu doon foofu noonu naan jot na. waxtu jot na. asalaamaaleykum. diggante yu am rek baax na. jërëjëf kii kii Basine waxul la ne dafa am fer fu moo dem tey. déedéet waxul ma ko de. on est tànk jërëjëf. ah may indi ma. waaw waaw boo ne damaa bëgg a wax defal la ndox bu tànga la ndox bu tànga waaw. waaw defal indiwaaleel ndox bu tànga. waaw ak tàngal waaw waaw ñetti doom rek baax. ko def yëf yëf yëf yëf mbay